voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu de l'opportunité de me retrouver aujourd'hui à Taïf, qui est un haut lieu de l'islam et du mouridisme, dont le rayonnement dépasse largement le cadre national pour s'étendre au reste du monde. Je que c'est l'une des fiertés du peuple sénégalais, c'est l'une des fiertés du peuple africain et du peuple noir. je suis extrêmement satisfait et reconnaissant à mon ami et frère Bougane Dani qui a été à l'origine de l'organisation de cette euh, voilà, nous avions d'excellentes relations qui justifiaient cela. merci beaucoup jërëjëf waaw dañuy sant yàlla bu baax ci li mu ñu kàttanal ñu mën ñëw fii Taïf ziyaare sëriñ bi ziyaare mhm. bërëb bi ndax Taïf dafa bokk ci fierté yi nga xam ni yi euh, l'islam bi dina ko ndamoo euh, Sénégal dina ko ndamoo Afrique dina ko ndamoo der ñuul dina ko ndamoo te rayonnement am mhm. dépassé largement cadre Sénégal ñu xam aussi li fi sëriñ bi liggéey ak li mu fi bàyyi parce que dara jógu fi ba <laughs> léegi ñi ko wutu ñoo ngi koy taxawu di ko remplacer mm-hmm. ñu sant bu baax nag suñu frère di suñu allier mm-hmm. Bougane Gueye Dany nga xam ni ñoo bokk coalition bi mm-hmm. moom mi organiser visite bi